tan gilo yota joka apa minyan guriang e gilo yota joka apa minyan guriang e tan gilo yota joka apa minyan guriang e gilo yota joka apa minyan guriang e tan gilo yota joka apa minyan guriang e ka joka apa mini angkuri amai Kilo yo ta joka Lord, you're القدير

lamb Lagos li ndeysaan yi ñu ngi fii ci terrain gaal gi journée Diaks production deuxième édition ndeysaan dimanche bi passé Diaks deux millions cinq cent la teg bi yoon mu teg trois millions nga xam ni kon lamba ngi noonu ndeysaan Ada Boy Baol Blindé ñoom ñaar wàllu bee Adama da ngay Ada Boy Baol ak Blindé ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar Blindé nag Blindé la ndeysaan daal Blindé la ñu ngi léewtoo ëppali deuxième combat mu ngi noonu Ada Boy Baol jël na Blindé Ada jël na ko bañ na Blindé bañ na ndeysaan ëppali jàppante na Obeuli ndeysaan Obeuli yaa ngi bëre xale bu am jom xale bu mën bëre ndeysaan Obeuli jëli nañ Obeuli Obeuli bañ na génn nañ abi bu woowaat na leen tas ndeysaan Belende ndeysaan ndeysaan Franc daan na Boy Faye takk na takk na doole wala déet Boy Faye war na ndomba Boy Faye war na ndomba Boy Faye war na ndomba Boy Faye war na ndomba di nga ci jugam déet Boy Faye war na ndomba Boy Faye bu rëccee nga noo def penalty la ci làmb Boy Faye bu la rëccee noo def daan na ko Boy Faye daan na ndeysaan Boy Faye daan na Boy Faye daan na Obeuli ba tey yéen a ngi bi Franc daan na Boy Faye daan na ndeysaan ñu ngi noonu ñoo nga jàppante Obeuly takk nañ la wala déet Obeuly takk na xale bi combat ba dana met Obeuly fa xat nañ ko daan na ko daan na ko Obeuly daan na leen ñu ngi ci beneen combat bi Blindé ak Ada Boy Baol jàppante nañ ci ngemb Blindé Ada Boy Baol Belenda Ada Boy Baol Belenda Ada Boy Baol Belende Ada génne waat na ko deux avertissements pour Belende ak Ada Boy Baol Belende boo amee trois avertissements ñu disqualifié waaw waaw deux ay ca arbitre bi sifflé waat na Blindé Ada Boy Baol Blindé Ada Boy Baol Blindé di nga génnaat ndax Ada da lay nga am trois avertissement arbitre bi jox ko victoire bi Blindé Ada Boy Baol Belende Ada Boy Bawol ndeysaan mbokk yi ñu ngi fii ci terrain Gaal gi journée Diaks production ndeysaan combat yaa ngi noonu Belende Ada Boy Bawol Ada cabaxal mu bañ ndeysaan Ada Boy Bawol nag démb Serigne Ndiaye numéro 2 moo ko éliminé fële ca waaw waaw waaw waaw ñàkk na ñàkk na Blindé ñàkk na Blindé ñàkk na Blindé ñàkk na Blindé ñàkk na Blindé ñàkk na ndeysaan quart de finale yi Cheikh Tidiane Niang moo leen ginnaaw noonu ngem ngemb lu xonq li Obeuli ma nga ca wàllu wee di bëre euh, Boy Faye ak Franc ñoo laale ci côté bee ndaysaan Cheikh Tidiane jël na mu bañ ndaysaan Obeuli Ada Boy Bawol Franc ak Boy Faye arbitre bi sifflé na Franc Boy Faye Franc Boy Faye Franc ak Boy Faye kaay Adama kaay nañ déplacé wu. 3 millions démb lamba nga woon fële ca at arène nationale ndeysaan Fallou moo ñu woowoon mu doon loo xamante ni en mën a xew mooy lamb mu ngi avancé. làmb mu ngi dox làmb mu ngi jëm ca kanam Ada Boy Baol arbitre bi sifflé na temps bi jeex na temps bi jeex na yéen ñaar am na lu leen arbitre bi di wax sifflé waat na Boy Faye ak Franc ba ñu ngi ci Ada Boy Baol Franc Boy Faye jëli na ko mu bañ Boy Faye jëli na ko Franc bañ na ndaysaan Obeuli ak Ada Boy Bawol Fils de daan na qualifié na demi-finale Fils de Batlen siki ndaysaan Franc ak Boy Faye ba tey ñu bi ndaysaan ñu ngi ci quart de finale yi fi mu ko yegg sori na da ko stade Iba Mar 5 millions bi ñu tuddee woon drapeau Matar Ba association des promoteurs ñoo ko tëggoon nii la ko defoon génnee ko par point mbaa loolu day xeeñaat arbitre bi attewaan na Boy Faye Franc Boy Faye mbot ko mbot na ko Franc tak na Boy doo ci génn Boy Faye doo ci génn Boy Faye doo ci génn booy fay franc booy fay boo ci génnee ma bàyyi la boo génnee ci lii ma xam ni ndeysaan booy fay franc ñoom ñaar ku ci daan mën ngaa jël compétition bi ndax fi mu toll nii favori yaa ngi dem waaye favori yaa ngi toog booy fay franc franc koy buus da ko bëgg a génne yi il fallait que mu génne ko saako yi booy fay ñàkk temps bi jeex na ndeysaan Obeuli Ada Boy Baol ñu ngi ci quart de finale Obeuli Ada Boy Baol ndeysaan Obeuli Ada Boy Baol ndeysaan ñu ngi noonu Obeuli Ada Boy Baol Obeuli Ada Boy Baol ñu ngi noonu ñoom ñaar ci quart de finale jëli na ko Ada bañ Obeuli Ada Boy Baol Obeuli Ada Boy Baol ndeysaan ci bi ba tey mbokk yi Obeuli Ada Boy Baol arbitre bi sifflé waat na ci Franc ak Bébé ak Boy Faye Boy Faye am na deux avertissement bu génnaatee saako bi dañ koy disqualifié ci kaw Franc bu temps bi jeexee booy Faye day ñàkk kon Boy Faye fi mu toll ni bëre rek ko war ndax Franc génne na ko saako yi ñaari yoon Obeuli ak Ada Boy Baol jàppante nañ Obeuli biij na ko Ada bañ Ada Obeuli Ada këf na tànk bi Obeuli bañ na ndeysaan Boy Faye Franc ña nga ca ba ñoom ñaar Boy Faye Franc Boy Faye ak Franc ñu ngi ci combat Boy Faye Franc ñu ngi ci quart de finale yi Boy Faye Franc Franc fàqat na ko mu bañ Boy Faye nga koy ngàdd ngàdd ci làmb la bokk Boy sol na mu ngi koy forcer bañ na Boy Faye yóotu na ngemb li bañ na Boy Faye takk na wet Franc bañ na Franc bañ na da koy buux mu génn da koy buux mu génn booy Faye bu génnee ñàkk Franc da koy buux mu génn Franc da buux mu ñàkk Boy Faye bu génnee rek day ñàkk bu génnee rek day ñàkk ñu noonu Boy Faye ak Franc ñu ngi noonu ñoom Boy Faye ak Franc ñu noonu Boy Faye ak Franc Franc koy buux Boy Faye bañ na Franc koy buux Boy Faye bañ na Ada Boy Baol Obeuli combat bi metti na combat bi metti na Boy Faye Franc Ada Boy Baol Obeuli ku daan dem demi-finale ndeysaan Boy Faye ak Franc arbitre bi àtte na am na avertissement ñaar Obeuly am na ñaari avertissement ci kaw aada Boy Baol Boy Faye am na ñaari avertissement ci kaw Franc mbokk yi combat baa ngi lamb jaa ngi noonu ndeysaan Franc Franc ak Boy Faye ñëwaat nañ ci digg géew bi Franc ak Boy Faye combat baa ngi noonu ñoom ñaar ndeysaan Obeuli Ada Boy Baol Ada bañ na Franc Boy Faye Boy Faye Franc du ko bëgg buux mu génn ndax Boy Faye am na deux avertissement ndeysaan lii xeeñ mooy lii xeeñ ci mbëri mooy Boy Faye ak Obeuli naru ñoo am sens ci compétition bi ndeysaan Franc bañ na Franc bañ na Franc Boy Faye ndeysaan combat baa ngi noonu ba tey ñu ngi ñuy gën a jegesi Franc ak Boy Faye ñu ngi noonu Franc ak Boy Faye Franc piis na ma Franc xool na ma ma xool ko mu piis ba ndeysaan Franc ak Boy Faye arbitre bi àtte na avertissement Franc avertissement Boy Faye disqualifié nañ ko wala déet ah, ah. kon ba tey ñu dem Boy Faye amul ñett avertissement wala déet wala ñaar laam en daal arbitre bi àtt na ndeysaan ñëwaat nañ ci compétition bi Franc ak Boy Faye lamb ji du yomb ndeysaan Franc ak Boy Faye ndeysaan Franc ak Boy Faye arbitre bi àtte na leen Boy Faye Franc gagné na par ar par décision ndaysaan kon compétition baa noonu di continuer beneen demi-finale bi ku mu doon ndaysaan xale yaa ngi noonu di bëre ndaysaan xale yaa ngi noonu daan dem final ci lese yi ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan daan dem demi final kenn du xale bi finalu démb arène nationale tas yaakaar kenn du moom tas yaakaar ndeysaan xale yaa ngi noonu di combat Ndeysaan compétition baa ngi noonu Ndeysaan xale yaa ngi noonu Ndeysaan arbitre baa ngi wax ñoom ñaari xale yi Ndeysaan mu ngi leen di wax li règlement bi nangu ak mu bañ Ndeysaan xale ba takk nañ ko mot na daan na xale bi ma ngay daan ndeysaan xale baa ngay daan ndeysaan jëlal ma lii xale ba finaalu na xale ba finaalu na ndeysaan ndeysaan ku daan ndeysaan xale yaa nga noonu cey ngi noonu ndeysaan ñu ngi ci demi-finale ñaari xale yi doo amee jafe-jafe à l'aise ngay nekk. waaw euh, fi. bëriwul jaagar jaagar. donc Abdou Ndiaye mooy bëri Aliou Diouf. dégg ngeen dégg ngeen combat ak Aliou Diouf. ndeysaan ñoom ñaar moo ci Abdou Ndiaye. Zambala Ndeysaan ak Franc maa la ko wax loolu la demee Ndeysaan Ndeysaan noonu lay deme Ndeysaan noonu lay demee Franc ak Ibou Ndiaye Obali ña nga noonu. daan dem final. daanu xaar. daan dem final loolu sax moo am ci bëre dóor bi de. daan dem daanu xaar. ndeysaan. 3 millions 600 mille. Ndeysaan P ABC Events Prince. Cey Prince. Ndeysaan Prince moo teg 3 millions 500. Ndeysaan. Ndeysaan. le 4 avril. Adrien Senghor. Euh, ndeysaan na ko mu bañ jëli na ko ñaari xale yi jëlante nañ ndeysaan waaye lu mën a xew mooy terrain gaal gi sedd na guy man de sama oom yeeg sama tànk yi lépp ay métti ndax seddaay moo tax xale yi ay jàmbaar lañ. xale yi ay jàmbaar lañ ndeysaan takk na ko ndeysaan xale yi takk na ko mu bañ ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba tey mbot na ko yi daan dem final du yomb ci ñoom ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan daan na daan na ko ndeysaan Obali ak Franc ñu ngi noonu ci demi final bi Obali Franc ñu ngi ci demi final bi ña ngay ñoom ñaar Obeuli ngàdd na ko bañ Obeuli ngàdd na ko bañ jëli na ko Obeuli plaqué na bañ na Obeuli jëli na ko biij na bañ na Franc fi ko takk baax na Obeuli jàpp na Franc daw na ci digg géew bi ñoom ñaar du yomb ñoom ñaar du yomb Franc Obeuli Obeuli bañ na Franc sol na ko Franc sol na ko Obeuli taxabal na Obeuli daan na Franc Obeuli daan na Franc hey Obeuli daan na Franc hey Obeuli wi jël na décision kaay Adama kaay Adama kaay Adama kaay Adama kaay Obeuli Obeuli daa ko doole doomu Diofior maa ko doole maa ko mën ku du moom sax maa ko mën ci demi-finale bi Obeuli daan na Franc jël bu rëy hee ëpp limi tey daa décidé démb ñëwul te arène nationale waaye tey am na leneen lu ëppali wane ndeysaan keroog bi mu fi mujj dimanche général moo ko génnee par point mu am Emine François Gomis demi daan ko jël bu rëy daan ko ak manière moom ëppali ndeysaan Zambala mu ngi noonu ak Fils de Batlen ñoom ñaar daan dem final am obali Zambala Fils Batlen ñu ngi noonu Fils de Batlen sikki nag champion la xale la boo xamante ni compétition yi bi mu amee ba tey mu ngi ñëw démb terrain gaal gi wala arène nationale tas yaakaar ko daan demi final ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan Sambala ëpp ak Fils de Batlem ñu ngi noonu ndaysaan Zambala ndaysaan cey lamb lamb garaw lamb moo garaw ndaysaan ëbbale ngay jaayu Fils de Batlem Zambala daan na dox ci diggante guy gi ak ngeel jonn numéro 2 guy gi moo la wan ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li ngeel jonn moo ngemboo ngemb lu bula li ndaysaan ñu ngi ci final bi ñaari xale yi depuis compétition bi commencé ba tey ñu ngi wane jom guy gi jël na ngeel jonn jël na ko ngeel jonn dina ko daan ngeel jonn dina ko daan ngeel jonn daa décidé ngeel jonn daa décidé daan na la guy gi ngeel jonn da lay daan daan na ko wala déet daanu ko laay laay la laa laay la daan na ko laa ilaha illallah daan na guy gi daan ngel jonn guy gi daan ngel jonn guy gi daan ngel jonn guy gi daan na ngel jonn guy gi daan na ngel jonn guy gi daan na ko ngel jonn jël bu la ngel jonn daanu ko jël bu la bett ndeysaan Ngel Jonn daan na jël bu ko bett ndeysaan ndeysaan ma ngay fecc ndeysaan arbitre baa ngi leen woo ndeysaan arbitre baa ngi leen woo arbitre baa leen woo ndeysaan ndeysaan arbitre bi sifflé na mbokk ñu ngi fii ci terrain gal wax mag dem nañ nga daali dagg war na mbaam lu waay doon jaay léegi bu lamb ndeysaan mbokk yi ñu ngi ci dimanche 28 mars 2021 terrain gal gi journée Jax production mise bi 3 millions la arbitre bi sifflé na diggante Ngel Jonn wala boog diggante Obali ndeysaan ma nga noonu moom Obali ndeysaan jiiti bëreg Zambala Zambala jiital tànk gauche Obali jiital tànk droite bëre bi day am ci ku am ku mu la ma père Birahim Ndiaye daan wax sama papa ji yàlla na yàlla gën a guddal fanam père Birahim yàlla na la yàlla may gën a wér père yàlla na nga fi yàgg ba ca kanama ak kanam ndax suñu sax nga suñu njariñ nga suñu papa nga père Birahim Ndiaye guddal fan wéral amal jàmm ak mboole mi jullit père Birahim Ndiaye waaye ndeysaan ëbbalee ngi noonu ndax daa am lu mësoon wax ci ëbbali nee na ëbbali bu sérieux gën a taxaw jàppaat boppam gën a fonk làmb lépp lu mu ci làmb dina ko am ne ma ëbbali mii gis naa ci moom xarañte gis naa ci moom mën a bëre gis naa ci moom ndaanaan ëppali mi tey loolu la wane ba finaalu digganteem ak Zambala waaye Zambala njool la boo xamante ni daa mën a bëre daa am xam-xam daa joxe cër daa fonk li muy def moom Zambala bi mu dugg see ba tey compétition bi lu muy gën di yàgg muy gën di wane boppam. waaye ñu ngi noonu ci combat bi ba tey ñoom ñaar diggante Obeuli ak Zambala final bi kenn demul mu woon ne xam ni tey làmb ji gaa yëpp a xaar amateur yaa ngi xaar ndeysaan nga xam ne làmb séeréer wala li traditionnel Zambala fàqan na ko bu bañ Obeuli ngàdd na ko Zambala fayu na déedéet arbitre bi àtt na amul dóor ngàdd moo am waa amul dóor ndaysaan Obeuly nee na ko ok fils Zambala ñu dem Zambala ne ka waaw ñu dem <laughs> ndaysaan dañuy bëre dañuy waxtaan dañuy bëre dañuy waxtaan Obeuly ndaysaan Obeuly Zambala ñu ngi noonu di lewaatoo Zambala moo ngem moo ngem lu weex li wan leen ginnaaw Obeuly moom ngeen jàkkaarloo moo ngeen boo ngeen lu xonq li Obeuly na moo war a ëpp moo ëpp volume waaye taxul li moo ëpp doole de ndax làmb noonu lay demee. 2 fan. Sowal ku ko fa teg. Leewtoo production. Ndeysaan. Ndeysaan Pape Thialis. waaw xale yaa nga fa. Ndeysaan may nuyu Ousseyn bu baax a baax ma nga foofu di liggéey liggéey bu mucc ayib moom ak kàggu. góor góorgóorlu leen tegale bu jubee te daanuwul bu jiitoo jub lool Adama le grand cadreur sama xarit sama doomu ndey foo ne maa nga fa Adama foo teg sa tànk maa nga fa teg sama tànk loo dugg ma ànd ceeg yow loo génn ma ànd ceeg moom Adama le grand cadreur maa ko tuddee la cadreur des cadreurs lum cadrewul baaxul waaye ba tey ñu ngi ci bi. dox ci diggante Zambala ak Obali ndeysaan Zambala ak ak Obali Zambala jiital pied gauche Obali jiital pied droite Zambala ngembo ngemb lu weex Obali ngembo ngemb lu xonq ndeysaan ñu ngi noonu ngàdd na mu bañ Zambala Obali Obali taf na ngemb Obeuly am na ngemb Zambala jàppul Obeuly bàyyi na mu ngi koy jéem a sol Obeuly mu ngi koy jéem a sol Obeuly lu mu bëgg la ko bëgg a def ñoom ñaar a ngi noonu Obeuly Zambala ndeysaan ñaari xale yi cey làmba ngi noonu ndeysaan làmba ngi noonu Ndeysaan làmb ngi noonu Obali Zambala Ndeysaan Obali Zambala Obali Zambala Ndeysaan Libidor Ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Libidor ndeysaan sànq éliminé nañ ko moom it ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu Obali ndeysaan ndeysaan combat baa ngi noonu ndeysaan arbitre bi àtte bi àtte na temps bi dana Obeuli ak Zambala ndeysaan Obeuli tàllal na ko ma ngay léemu ma ngay léewaatoo ak moom waaye ma ngi koy léemu ndeysaan Obeuli Zambala Obeuli ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Obeuli Zambala ndeysaan Zambala Obeuli ndeysaan Zambala Obeuli gàdd na ko bañ Zambala jël na tànk ba daan na ko Zambala daan na Obeuly Zambala daan na Obeuly Zambala daan na Obeuly Zambala daan na baax na sàmm bëri karim champion nga billahi yaa def champion jaajëf ñoo far ñoo far